1915 la sëñ Touba jox ndigal sunu maam Cheikh Omar Fall ñu tàmbali gàmm gi 1915 1916 ren jii di téeméeri at ak juróom-ñett yoo xamante ni ñu ngi koy màggal tolloo nag 1333 ci ya ñu ñaan sunu borom sunu jàmbaar jooju nga xam ne moo demoon màngu xéewal yooyu ak barke boobu ak ndam loolu. ba ràññee sëriñ Touba ràññee ko lool ba jox ko ndigal li yàlla na yàlla yokk dañu ko fayal ak njabootam gi ko wuutu taxawu liggéeyam ba suñ jon yàlla tey mu yegg si fii ñoo ngi fii toog ci ëttub seex Ibrahima Faati nga xam ne moom la tuddee woon sëñ Ibrahima maam maam Cerno Ibrahima nga xam ne Cheikh Omar Fall dafa amoon relation ak laaxaat ak njabootu sëñ tubaak gi yëpp ñëpp daan fi ñëw di ko seet ci bërëb bi mas a nekk ngir ak taalibeem tabe woon lool nekkoon ku baax lool mokkoon lool di murib saadeex lool seex bu mu dëkk mas nga koo naw ñépp la amoon ak kóllëre ñu ngi toog ak jëwriñu Touba Fall Seydi Omar Kata Fall doon kenn koo xamante taxaw liggéeyu maamam nga xam ne mooy xalifaab seex Ibrahima Faati Fall ñu ko sunu borom yokk wér yokk ko tawféex ba lim namm ci liggéeyal ko maamam sunu borom defal ko lu kawe njot ñu ngi ziare sëriñ Malick Fall xalifa Cheikh Omar Fall ak njabootu Cheikh Ibrahima gépp bu ngeen gisee ñu toogee nii nag moo sàkku ñu toogee nii ngir lim bëgg waxtaan ak taalibe yi rawat nag waa àddina ak ñiy laaj kan mooy Cheikh Omar Fall ay kàddu bu dee ñett sax ñu bëggee ko ñu ngi ànd nag toog fi sëriñ aadama Ndiaye ca karma ba awa nga xam ne sëñ Omar Fall mu nekkoon Omar mu ne ko mu ne ko Mbàkke mu ne ko fa nga dëkk noo def ak sëñ Adama Ndiaye sëñ sëñ ma ba awa mu ne ko soriwul mu ne ko sàkkal aw call woo fa dem ba moo waral tey yoon wi gën a neex wi ñëw Touba Fall Kër Mabala salaam di nuyu mboolem koo xam ne kii ñëw nga ci gàmmu Touba Fall di la siyaare di ñaan yàlla it suñ kàddu fekk ñëpp ci jàmm di ñaan yàlla it yàlla nangul ñu suñu gàmm euh, gàmmu gi comme ni nga ko waxee sunu maam lañ ko joxoon mu fàggul ñu ko ba bésab tay bii jóge woon ci ndigal loo xam ne ku tedd ki moo ko joxoon kon nag ñun suñ gàmmoo dafa am beneen taxawaay boo xam ne bii gàmm yu bari amuñ ko ndax gàmm goo xam ne ndigalal sëriñ tubaa la buñ ko doon wër ci gàmmo yi dana jafe lool gàmm go goo xam ne gii sëñ bi moo joxe ndigal la képp ku ci ñëw mbaa nga dundale ci mbaa nga nga def ci sa benn dërëm xamal ne e, def nga ko ci ndigalal sëñ Tuubaa def nga ko ci loo xam ne lii mooy guddi juddu yonent bi kon nag ñi ngi e, nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ñépp nañ fas yéene dundal guddi gi ni niñ ko santaanee Eh, ndax dundal guddi yonent bi yaakaar naa ne nit mënta jëf lu gën a kawe loolu wala lu ko ëpp maam maanaa wala lu ko ëpp daraja kon nag ñun sant nañ yàlla bi nga xamee ne bii yàlla may nañu eh, pàgguteef bañ mën koo dundal eh, su fekkee ne amoo yeneen i laaj kon kàddu yi ñu gàttal ko rek ci yemale ko ci foofu. gàmmug Tuubaa ci bërëb yu ko Seex Omar Fall ak nan la ko daan waaw ni ko sëñ Omar Fall gàmmu daan gàmmoo de mu euh, fekkut ñu fi woon waaye dégg nañ ci ay nettali ndax booba ay xasaayit bariwut waaye dañ daan dajee di tudd yàlla di julli ci yonant bi ba bët set ñu tasaaroo gannaaw gi nag bi xasaayit yi génnee dañuy commencé di ci jàng ay xasaayit waaye ci njëkk ga nam ko daan dundalee mooy dajale mbooloo defal leen ay daranga ak i bernde aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim innama al bi niyaati wa niyati attabaruku bi saadaati salafu saalin li xooli rasulillahi salallahu alayhi taalamu bi nasabikum maa tatawwasaluna bi arham li ajli ansa nuridu an nataalama min ajdaadina sayan wa bi ihlaani asalsalati jadina Cheikh Omar Fall tayebalaaw saaru bi jaay xaadim rasul sallallahu alayhi ma deeti sant yàlla mi moom jaam di leen lijjanti julli ci yoneen bi rasulullaahi sangu mbindeef yëpp bi dunilaay te jiima wax ko baax te tedd murit bëggam Bàmba Omar la tudd santam wa faal baay ba ma dun la tudd ndey jaadi faama jaxate moo ko tedd ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu seetaan ci ci Touba ñu nekk ci gàmmu 2020 1440 ñu ñaan sunu borom mi aji dimbale yàlla nañu doole dimbale ba liñ nar a liggéeyal Cheikh Omar ci dëkkam bii di Touba sunu borom may ñu kàttan gi ma taxawoo ñu ngi ci ëttub Serigne Souleymane Seck. ñu fekk si sëriñ ma Massamba sekk mii nga xamante ni bokk na ci jëwriñ yi taxawu Touba Fall te yilif njaboot gi ci yilif yi nu gën a rafet mi ngi ànd ak njaboot gi ñu mën cee tudd sëriñ Modou Gueye Seck ak sëriñ Modou Seck ak sunu bàjjen Aminta Fall ak soxna Awa Dieng ak euh, soxna Jooja Seck ñii nga xamante ni ñoo teewal ñenn ci njaboot gi ñi teewut ñu ñaan sunu borom mu defal ñu tawfeex ba liñ nam ma waxtaanee sunu borom mayuñ ci lu kawe njot kon nag ñi ngi ziare bu baax sëriñ Samba Seck di ko wax ne ko tey daaira Saalina Touba Fall dana ñëw ngir fas yéene yaatal liggéeyub Cheikh Omar waaye mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Cheikh Omar Fall sëriñ Souleymane Seck buñ doon ñu wax ne loo ñu ci mën a wax ci diggam ak jàmbaaram jooju nga xamante ni ab jarbaatam loolu sëriñ Omar Fall di nijaayam ñu àndoon ci liggéey bi te taxawu ko fépp foo xam ne Cheikh Omar dem na fa ñoom ñu nekk ci ronam kon sëñ Samba Seck ci nett li loo ñu mën a wax ci jàmbaar jooju nag nga xam ne àndoon na ak Cheikh Omar Fall. maa ngi sant yàlla di sant Serigne Touba di sant ndox mooy suñu lépp Souleymane Seck nag mooy sama waajur moom Omar Fall moo doon na moo doon na mu toq ci moom ci seen dundu. Hmm. Euh, kenn koo xam ne kii ñeme naa yegoo man fa wala nga yëpp xamutoon. Hmm. ndax ay jalbaatam ñoo ko taroon bu dee liggéey ñu liggéey. bu dee joxe alal ñu joxe seen alal. Hmm. daa leen bàcc guddi leen bàcc bëccëg. man yàlla dafa dogal. mënuma mënuma wax xëy na am na am na ma xam ne am loo xam ne bëri wax. bu nit ñi teewee su ma toogee. du ma mën waaye loolu moom xam naa ne. Hmm. moom lañ saxoo. Hmm. nga xam ne loolu dem nañu dema dema dem ba tax na man. Hmm. xaw ma woon dara lu ma ko Omar Fall. doomam bi wax Alaaji Sëriñ Fall. ñoo daan ànd. mu nekk ci daara yi man ma nekk ci kër gi. waaye daara bu ma sa nekk. fekk naa ko fa ba ni mbottoo Alquran. ak ni mbottoo Alquran ak moom la am permis de conduire. yàlla ta boole ñu ñunuñ tàggoo guddi duñ tàggoo bëccëg doon nañ nekk fii maam baaba daana daana ko fekk sama néeg sax mm. wala fekk ñu ci benn place ñu doon mu tàggale ñu dàq ñu tasaare ñu mm. ba ñu waaye mm. yàlla ñu boole woon ànd fu mu alaay sëriñ daara ju masal laxas dem fekk naa ko fa xendu naa fa ak moom ba ngoon jot ma réetu ñibbi kooku moom yàlla boole moom comme lii mu def rek muyu sant yàlla waaw sant naa yàlla bu mm-hmm. baax. te taxaw leen. amiin ngeen sut ko loolu bu ma toll moom laay ñaan. gàmmu lu mu baax gàmmu démb ak gàmmu tey. waaw gàmmu démb ak mm-hmm. dafa wuute. Mm-hmm. ndax gàmmu bu njëkk. am na fii temps dëkk bi. amuñu woon ku gàmmu. amuñu woon ku gàmm booba Leyli Seck Tafa Maram Abdou Samad ñoom rek ñoo fi newoon mujj gi Abdou Samad di dëbbe ñuy des di awu waaye boobu ay jàngkat mu ranke na fi dem nañ ba am na guddi yoo xam ne maa amar day dem ba door gu uti jàngkat lu am bu ñewee mu ànd Njaga Faal la fi indi Njaga Faal ab faal la woon am ay tabalam di tëgg waaw booba jàng tumuraanke woon na fii bu bëggaa jàng lu kaamel hmm. danañ war réew mi yëpp hmm. duñ mën a am nit hmm. tey sant nañ yàlla kër gu fit goo bàyyil fi nekk fi bàyyoon fi nii am na am na na yàlla guddal seen fan waaw amiin yàlla macha allah sëñ Souleymane Seck mi nga xamante ni jëwriñu daaira Saalina Touba la te yàgg fee taxaw kër sëñ Basiiru waaye rawatina kër sëriñ Seex Njool ñu ngi koy ziare bu baax a baax kon sëñ Mor Seck kàddu yoo mën a sant ak njaboot gi saa ñu ci rek naa dégg sama papa yi di wax di wax naan moog sa moog sëñ Omar Fall moo doon jar baatu sëñ Omar di ko jàppale ci côté bu ne. ñu mm-hmm. jàppalante ci wàllu liggéey bu ne ci wàllu mbooleem lu njëkk li Omar Fall bëggoon ñoom ñu ngi ci xëy suba ba ngoon. Mm-hmm. wax dëgg ñu ngi sant yàlla bu baax. jàpp boobu nag ba léegi moo ne ci dëkk bi Touba Fall gi mm-hmm. àndoo bi benn la. jàpp ko benn la ñëpp ñu ngi sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla sant nañ sant nañ bu baax ñuy gërëm la mën a daa mënta wax waaye sant nañ yàlla bu baax asalaamaaleykum yàgg net li 1923 1924 1925 fay Cheikh Omar Fall di gàmm ca boowe Serigne Souleymane Seck ak Serigne Jooja Serigne Ama Jooja Seck ñoom seen doomu nday yooyu Serigne Amar ñoom ñett ànd ak Serigne Medoune Seck ànd ak euh, Serigne Makumba Fall Alaaji Makumba Fall ñu ànd dem fekk Cheikh Omar ne ko ñun kat ñoo bokk lépp te mënuñ koo séddoo nga dem Serigne tubaa leerlu ba leer nga jóge fa ñëw fii boobee dem Jookaa leer fa ñëw boobee di ko leeral danoo bëgg nga ñëw nag gént kay fas yéene ñëw leeral foofu ndax say askan ñoo fa nekk kon nag ñu jox soxna jooja Seck moom bokk ci jàmbaari tubaa Fall li ma koy wax ne ko tey bu sëñ Omar yee waatoon tey jii nii nii nii nii nii nii nii saw doxin doo ko ndax jigéen ñi Touba Fall la ma yàgg wax sama turandoo Cheikh Abdou Samad ne ko jigéen ñi Touba Fall moo man ñoo mën góori Touba Fall jigéen góor ñi leen di jàppale waaye mii bokk na ci ñi taxaw Serigne Malick Fall mi nga xam ne mooy xalifa tey jii bu amee as ndam ci liggéey bi jàmbaar jaa ngi nii jigéen ñi Touba moo leen jiite ci fànn yëpp dëkk bu ngeen duggee mbedd ba mbedd du ngeen fi gis bant buy buy falax ñax mi noonu ngeen xam ne daal dëkk bu mel nii tey bokk na ci jàmbaar yi ci ku ñu ñaanal la sunu borom yokk koy tawfeex soxna jooju loo ñu mën a wax jigéen ñi Touba Fall rek seen taxawaay. Souleymane Seck de maa ngi dégg ñu ne keroog ba nga xamee ne maam Omar mi ngi ñëw di gàddaay di jëw si Touba Fall bii ñoom ñeenti jarbaatam yi ñoo ko toppan Souleymane Seck Amath Joojo Madoune Seck Serigne Bane waaw Serigne Bane Seck. Mm. biñ ñëwee fii ñu jàppale ko kon nag lii tey su ngeen ko defee ñëw ba ca tëb Souleymane Seck ngeen toog fi ne yéen a ngi leerlu ah danañ ci am sànni suñu mënuñoo wax nag waaye dañ ci sàdd suñuy kàddu te xam ne kóllëre gannaaw lay féete ndax paale nag euh, cekkeem sotti yeeg def si la ndax keroog ba Mahamad gàddaayee foofu ay jarbaatam dong nga ko topp maam baaba topp ci mm-hmm. ñoo ñoo ko toppa mm-hmm. kon nag tey su ngeen defee lii rafetlu naa ko te xam ne lii moom kóllëre la mm-hmm. Souleymane Seck nag jàmbaar la woon moom jàmbaar te bëgg ay doomam bëgg lépp lu mu xam ab ñoom seen ab famille dañ koo fonkoon. Mm. muy seen najaay ak seen i jarbaat ak seeni doom yëpp. Mm. dañ leen a fonkoon. Euh, sama maam Fat sama bàjjan Fat Diagne mi may nettali mu ne keroog bañ ñëwee fii. Mm. di ko gor. moom moo daan jógee gént kay. takk daal la xob mu ne booba daal la xamut. daal la xob lay takk ci tànkam bi ñëw fii di leen yot xañ ak reer ak ndékki. mu ne bañ bañ defee loolu ba nga xam ne mat na si jàng maam xomar ne kii samab jarbaal la lu ma ko wacc maa koy may samab taaw moo ko andi si kët gi mu ne si kët gi nag takkaayu di liggéey di liggéey ba tey ab liggéeyam tey sëna ci moom kon nag waaw mooy xalifa bi waaw jab njaboot bi kon nag kon nag tey lii sant yàlla rek la ñuy def sant yàlla di leen ñaanal yéen itam yéen ñi nga xam ne yéen a yaatal lii ndax gàmm ga ci néeg lañ ko daan defee tey yaatal ngeen ko ba lii xam ci mm. ah kon nag yéen ñëpp la ñu sant di leen gërëm te di leen ñaanal di ñaanal ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñëw dëkk ci Touba Fall gi mm. te tey di ñëw di ñu jàppale si mm. ñi di leen ñaanal yal na leen yàlla yokk ci barke alquran mënu maa wax non mënoo wax na benn point <laughs> <laughs> ah, jërëjëf soxna joojo yaa ngi nettali soxna Fatou Diagne ci taxawaayam mm-hmm. ba tey lii am mm-hmm. kon tim lañu ma a ci soxna yi rawat na ndaw ñi nga xam ñu ngi dugg ci néeg di di liggéey ndaw yi dugg ci néeg di liggéey ñoom ñëpp man daraa leen sant di leen gërëm mm. ndax maa ngi jiital dëkk bi mm. ñoom ñëpp topp nañ ci sama kaw mm. su ma ne jóg leen ñu def ñëpp jóg ñu def seet siral bii nga gis si dëkk bi tostan ñoo ko fi indi woon biñ ko fi indee biñ demee ñu topp rek topp rek di setal dëkk bi di defar fi mu ne nii buñ jógee buñ ne wàllu kër sëñ Touba jigéen ñi ñoo koy def lu fay dem jigéen ñi ñoo koy def suñ ne nañ nañ dem Porokhane lu fay dem jigéen ñee koy def jigéen ñi Touba Fall jàmbaar lañ jàmbaar lañ nangu nañoo liggéey nangu nañoo fab seen xalal def ci ci ci ci wàllu sëñ Touba man maa ngi sant rek di leen gërëm ñu ñaanal la taxawaay bi gën a آمين حسن ورا والتبليس لك السماء والأراض bokki daayira Saalina Touba Fall bokki jullit yi bokki taalibe bokki àddina ñoo ngi fii ci Touba Fall ñu nekk ci gàmm 2020 ren jii di cent huitième édition 1915 la sëñ Touba jox ndigal Cheikh Omar Fall moom la koy waykat bi ne fii way xasin la njëkk a gàmmu Joka di sant ak ay di berndeel Joka la njëkk a gàmmu ca Joka moom la ko waykat ba tegaa ci ne nee fii xël sa la njëkk a gàmmu Joka fu mu masaaroo mu ñëpp xam kooka kooku mooy jàmbaar ji mooy Cheikh Omar mu di ko gàmm ba yàlla dogal mu sañ ci Touba Fall ci aw melowam waaye rawat nag ñu ngi fii ci ëttub sëriñ Mor Awa Taal di kenn ci Touba di kenn ci Cheikh Omar bëgg xam ci moom nag ñu ngi toog ak njabootam xalifaam sëriñ Mor Taala Taal mu feggoo ak ay rakkam ak ay doomam ñu bokk ñaanal sunu bàjjan soxna jaar yetu laahi Fall maam jaara Buso di leeru Cheikh Omar mu yëkkati ko dugal ko fii ci ëttub sëñ Mor Awa Tall ngir mu leeru ci ci Baye Fall ñu ñaan borom mu dolli ko fi yàgg lool te mu ànd ak wér ñu ngi ziare sëñ Mor mii ak njaboot yëpp di ñaan sunu borom mu dolli ko fi yàgg lool ba li waajur yi naal ci liggéeyal ko lislaam waaye ëttub sëriñ si maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ciy taxaw sëñ Mor Tall boo doon ñuy wax ci gàmmug Touba Fall waaye rawatina ci diggante sa maam ja Cheikh Omar Fall ak sa baaji sëñ mortal bu daanalee rek ñu jox sëriñ Abdoulaye taal moom danañu xuusal nag dëgg dëgg kan mooy sëñ Mor Awa di nuyu mboolem koo xam ne mu ngi aju ci sëriñ Omar Fall di siyaare ñëpp di leen ndokkeel bu baax a baax muy góor ak jigéen mag ak ndaw di siyaare it yi nga xam ne ñoo des ci àdduna di ñaanal ñi nga xam ne ñoo jiitu ci barsàq yàlla jéggal leen dafa leen yërmande ci barke borom Tuubaa ak Saara Fall ñun sama baay mu rawatal nag moom ku ne xam na ne moom Baay Fall la dafa njëkkoon taxaw samp daara samp kër ba yàlla dogal mu am si ñaari bant bu góor ak bu jigéen kenn ki ñu koy wax seex Tall ay njabootam a ngi fii ci jotaay bi ñi ñuy wax Mbaye eh, Babacar Fall mi ngi fi ki ñu tuddee sama baay ma rawatal ngi fi di dund am am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mën mm. mm, nañ ci leen lim mm. kon nag ci biir loolu it sëñ Mor Awa Tall nekk na koo xam ne ku taxawaloon kër gi la ba mu dem ba mu yàgg yàlla dogal kooko wàcci mu dem lax saay ji sëñ Moustapha Fall sëñ Moustapha Fall moo ko takkal der ba yàlla dogal ma mu wàcce ko ci kàttanam mu topp sëñ mu topp sëñ mu topp sëñ mu taafal topp ko topp ko ba sëñ mu taafal yàlla dogal mm. bu mu ànd ak sama baay ba jàllal bi ko moom it mu làqu mm. mu ñëwaat topp sëñ Mor Talla Fall mm. sëñ Mor Talla Fall fekkee jiw ma yaakaar naa rumbul ñetti at ci jàll bi bi mu wàccee sëñ Abdoulaye Fall Ndar ñëw mm-hmm. mu toppaat ko toppaat ko mm-hmm. lu ne def na fa mm-hmm. ci yoon wi dugub lu mu fa yóbbu ci war ci dugub amut lu ne yóbbu na ko fa daal ba am na sax man at bi nga xam ne ci la ñibbi si daara. Mm. def ak sama samay mag ba samay mag waaye bàyyi liggéey bàyyi liggéey. Mm. Euh, kon demal demal euh, def seen këru bopp. Mm. njëkk naa at boobu la njëkk a bay juróom benn fukki saa koy dugub ak ñett mu jox ma benn leetar ak lu toll ci ñaar fukki junneeg juróom ci jamono booba nga xam ne ñaar fukki juróom jamono booba xaalis bari la ne ma boo demee jox ko sëñ bi bu ne ko wan euh, dal di ko ba ma demee jox ko sëñ bi sëñ bi ne ma demal fanaan ci kër sëñ Amar Ba. Mm. sëñ Amar moom mooy kan moo doon sàmm baayi maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm. ma fanaan mu laxasoo ak sama baay nekk ay xarit lool. Mm. léegi nag bu ñu bi nga xamee ne jox bi nga xamee ne fanaan naa fa bët set ma xëy dem ji siyaar jiyaat sëñ bi. boobu sëñ Assane Fall moo fa nekk. sëñ Assane Fall booba. mu dal di ne ma euh, mu dal di jàng fekk ji leetar bi mu ma joxoon. Mm. bi mu ko jàngee ba pare. Mm. mu boole ma ak benn oto. Mm. oto ba rëyut. ba mu demee ñëwee mu tegal ko sa fukki saako ak juróom oto borom oto bi ne lii la oto bi attan. keroog sama baay dafa jëllu. sëñ bi waroon na yónnee oto bu rëy. ma jox ko dugub ji yëpp. nga kon kon nga xam ne sëriñ Mor Awa Tall mu saadix loon mu ritam nali loon. Mm-hmm. nekk na koo xam ne ku dëgëroon la ci yoonu Baye Fall te lu ne def na ko ci yoonu Baye Fall. Mm-hmm. bu mu jogee ci loolu it ànd naa ak euh, sëñ Amar Fall mm. fekk loolu moo jiitu lu Amar Fall li sëñ Amar Fall daal di ñëwaat mm. fekkaat ko euh, fekkaat ko euh, njaareem mm. mu daal di jàllal bu ko ànd ak moom si ànd ak moom mu bi ñuy sañ ci Touba Fall gii tudd dëkk bii sama baay moo ànd ak moo ànd ak sëñ Amar Fall dem sëñ Mot sëñ Moustapha ñu dem mu jox ko turu dëkk bi muy dëgg mu ne ko boo demee tuddee ko Touba Fall tur boobu sama baay moo moo ko njëkk a xam hmm. njëkk xam le hmm. boole koog hmm. jox ko ay mu ne ko demal sëñ Maraw sëñ Maraw Taal demal ca mbandi barkeelu ya nga tànq ta indil ma mu dem tànq ca mbandi barkeelu yëpp indi dajale ko jox ko ne ko boo demee ca dëkk penku dëkk boo demee ca dëkk ba foo bëgg sa dëkk bi yem rek na nga ko fa def li ci des nga def ko ca naanukaay ba kon yaakaar naa sama baay bokk na ci ñi nga xam ne mm. taxawu na Touba mm. Fall mm. taxawu na Serigne Amar Fall ci wàll gu bëree baree baree bare bëri kon li ci des bu ma ko jëlee lépp Ablaye du am lu mu wax kon Ablaye nañ ko delloo moom it kàddu gi mu am lu mu ci dolli. dafa dëpp jaar ci jarbaatam bu ñuy wax Cheikh Maraw Tall njabootam te loolu mu am ci Touba Fall képp ku nekk ci ci njub. Serigne Abdoulahi Tall nga gis ne tur yëpp day dellu ci waat ci jabootam. Abdoulahi ñu ngi siyaare bokki julli siyaare bokki taal bi yëpp ah daanaka comme suñu wax daanaka mën nañ ci ñàkk bari ndax suñu jëw di ni ngi nii suñu xalifa di sëñ Mor Talla Fall sama baay mi ngi ko dippee sëñ Mor Talla maam Cheikh Ibrahima Fall man mi di wax ak yow sëñ Ablaye Fall Ndar la ma sama baay tuddee mu maam Cheikh Ibrahima Fall kii mais mm, mm, May mm. euh, waajuram mi ngi ko tuddee sëñ Modou Moustapha Fall mu maam Cheikh ma Fall mbooleem njabootam gi ñëpp mos mu ngi ko tuddee mos benn taalibe boo xam ne nii bu mu gërëm moom la ko tuddee sëñ Mor Ablaye mi ngi ko tuddee sëñ Mor Ablaye Fall moo ma sëñ Ablaye Fall Sey mii mi ngi ko tuddee maam Sey Nabou Ndiaye mboolem njabootam gi rek kër Cheikh Ibra la leen tuddee jeex tàkk ci kër gi waaye nag kóllëreem ak diggante mook sëñ Omar Fall sëñ Tuubaa Cheikh Ibra donga moo leen boole ñu bokkoon xànd ci mm, ci côté bu ne te it wax dëgg yàlla boo xoolee lim njëkk li ko njëkk sampal kër mooy jarbaatam la sëñ Omar Fall yëkkati jox ko ko mu am ci sa Taal ak Seex Taal mais nga xam ne ñoo bokk ak ñun waajur soxna Aminta Fall soxna Aminta Fall jarbaatu sëñ Omar Fall la mu njëkk koo jox mu am ci ñaar yooyu yàlla dogal mu làqu mu làqoo nag Ah, léegi mu delluwaat ci daara ji ci liggéey bi xam nga bëgguma delluwaat ci ci liggéey mu delluwaat ci daara ji sëñ Omar dell dellu soxna Boussa Fall dell ko ko xuutalaat dellu ko joxaat doom mu am ci sëñ Mor mii di tey nekk xalifa sëñ Mor Awa ak sëñ Modou Moustapha ak sëñ Modou ak sëñ Mor Ablaye itam ñu bokk benn waajur man ma bokk ak ñoom benn baay waaw mm, loolu mooy li xam ne moom njaboot gi la waaw ah, ñun nag lañ suñ baay bay woon nga xam ne ñoo bokkoon ak moom nekk fi ñu gis ko mooy dañoo àndoon ak sëñ Omar fu sëñ Omar mas a nekk rek fekk na fekk na ko fa ca gént kay ci Touba Fall fu mas a ne rek eh, moom fekk na ko fa te toppeeku lenn lu sëñ Bamba kon nag loolu moom lañ fas yéene ñun dund ak moom tey nag njaboot gi wax dëgg yàlla feddali nañ kóllëre gi taxawaay bi feddali nañ ko bu baax a baax xam na fu ñuy teg te xam nañ ko te jàppewuñu dara lu diggante ba nga xam ne mag ñi ñoo ko ko doon ñi bokk liggéey bi moom lañ ñuy jàppee ba tax ñoom itam fañ fa euh, fañ sëñ Omar tegoon marawataal marawataal ko fa ñoom it njaboot gi jàppee nañu ko moo tax ñu ngi leen di ñaanal fan wu gudd gu ànd ak wér. ci sunu borom yokk wér wax dëgg fi yàlla dañ koy xoolee jëmmi Cheikh Omar Fall li waral loolu mooy li tax Cheikh Omar Fall tànn ci njabootam yëpp daal di ko dugal fii mate na ko waaw ah, kon daa sant yàlla bu baax ñu ngi ziare bu baax sëñ mbay wax dëgg fi yàlla ci taxawaay gi mu taxawu ci ay waajuram yi tamit ak ci njaboot gi ndax fu ne ni bokk na ci sëtti sëñ Marota ñi ci mag ak magam yu tedd yi nga xamante ni sëñ Aliou ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare bu baax di dool di sant yàlla bu baax rek di ñaanal sunu xalifa sëñ Malick Fall sunu borom doole ko fi yàggal lool ba li maamam taxawaloon ak ay waajuram taxawal ko di ko dundal moo waral tey ñu ñëw ba fii gën ko yaatal. آمين وجل وسيلة من جلبة إلى الإيمان والإسلام والإسلام وشهادة دائمة دائمة آمين صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نشرت إليها أبدا أبدا أبدا آمين آمين آمين آمين آمين aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki daayira Saarina Touba Fall ñu ngi nuyu bu baax bokki jullit yépp di nuyu bokki taalibe yi ah, niñ ko waxee ci ziar yi ba ñu xëyee ba tey ñuy topp ëtti leeri sëriñ Omar Fall ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Touba Fall ñu ngi nag ah, fekk fi tey nag ñu am ay ay gan ñoo xamante ni Euh, ñu di ay bokk di di ay dëkkandoo di di bokk yi gën a foor ci bokk ki mooy bokk sëñ Touba ñu ñëw fa yéene ànd ak ñun ci liggéey sëñ Touba bi muy waa Touba Kër de Sadio daayira Sarina muy ay ndaw nag yoo xamante ni yàlla dafa leen tawféex ñu ànd ak seeni waajur ci déggoo ci kàddu fas yéene nag ñëw ànd ci liggéeyub Cheikh Omar bi ci atub Serigne Omar waaye ci toolub Serigne Touba ñu am tawféex nag fekk fi sunu jëwriñ ji nga xamante ni ku matee dundam lépp cig taalibe di dund dund murid saadix di seex Moustapha moom seex Ibrahima Faati moom seex Omar Fall ñuy ay ndaw ñoo xam ne seen lépp dañ koo jaay ngir jënd liggéeyal ko suñ tubaa ñuy seeni jëwriñ di sëñ Demba ak bokk yi nga xam ne sëñ Souleymane ak bokk yi nga xam ne ñoom lañ ànd ak ñëpp rek ci waa Touba Kër Sadio kon nag ñu ngi leen dalal bu baax fii ci ëttub seex Ibrahima Fall. ci sunuy jëwriñ Cheikh Moustapha bi nga xamante ni moo yor kàddu Cheikh Omar Fall kàddu di yor kàddu xalifab Cheikh Omar ñu jox ko kàddu mu nuyu leen dalal leen ci ndokkal leen ci barab bu baax bu tedd bii nga xamante ni moo di Buqaatu Mubaaraka bi Touba Fall alhamdulilah alhamdulilahi alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin seydina wa maulana muhammadinil makin wa ala alihi wa sahbihi wa sawi ridwaan wa tamkiin bokki jullit yi bokki taalib yi noo ngi leen nuyu nuyoo bi ñu lislaam boole ñun ñépp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. comme ni nga ko waxee du Abdou jëf ñu ngi fii ci ëttëb Cheikh Ibra Faty moom Cheikh Omar ah, fekk fi nag jëwriñ ji waaye dafa nekk ci biir muy Cheikh Omar Fall waaye nag boole ñoo daaira boo xam ne ngeen fekk leen fi tombe feek ñoom muy daairatu saalihiina Touba Kër de saajo ñuy ay ndaw yoo xam ne ñoom itam dañoo jóg ànd ak ñun ci liggéey bi yàlla def may seen buntu ci kër gi ñoom ñëpp ñu ànd ak man ñuy ànd ci liggéeyab sëriñ Touba bi fii ci kër Cheikh Omar Fall kon daa daayira boobu leen ki ko jiitee di sëriñ Demba ànd ak ay rakkam ñoom ñëpp ñu teew fi ak seeni soxna ànd ak ñoom ñëpp ñu teew fi ngir màggal si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogal na bi ñuy ñëw nag indi nañ addi yu bari yoo xam ne wax dëgg yàlla yóbbu nañ ko ci kër sëñ ba ci jëwriñ ja teewal ko fa sëñ bi sant na leen lool gërëm na leen ñaanal na leen yàlla it kon sëñ Abdou jataay bi nii ñu ko defee rafetlu nañ ko lool ndax sëñ Omar teew fi ci biir waaye doomam sëñ Ibra mi ngi nii toog moom itam ah, di sëñ Ibra làmp waaw mi nga xam ne nii mooy doomam ñoom ñëpp ñu nekk ci sama ron ñu ànd ci liggéeyam sëriñ Touba bi fii ci kër Cheikh Ibra gi kon ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm yàlla di ñaan yàlla yal yàlla nangu ñu ñëpp. lépp lu ci waaye def yal yàlla nangu la ko te yal ci daje ngërëmal yàlla ci saahir ak ci baatin am nañ aouzu billahi mina seytaan rajim alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki daayira Saalina Touba bokki julli bokki taalibe ñoo ngi fii ci Touba bokkaanatul mubaaraka dëkkub Cheikh Omar Fall di jàmbaar joo xamante ni ku làq ngërëmi sëñ Tuubaa la làq ngërëmi gaa ñu baax ñëpp ku mas a dajal jamono rek te mu jëflante yow am na sa ngërëm mu am ngërëmal gàmmu ca 1915 ca njaareem ni Cheikh Mamadou Keba di wax ne ku nekk ci sëriñ bi ba ràññeeku ba sëñ bi woo la ne Omar mu ne Mbàkke mu ne ko kaay jox naa leen ndigal a gàmm waaye lu jiit loolu yëpp nag ci tënk rek nga xam ne kooku jàmbaar la woon 1915 2020 tolloog 1442 hijriya ñu am ndigal di gàmm moom la koy waykat bi wax ne fii xalsasin la njëkk a gàmm jookaa fu masaaroo mu ñëpp xam kookaa ren jii di téeméeri at ak juróom-ñett ñuy gàmm gàmm ak Touba Fall ñoo ngi fii ci ëttub Serigne Ababacar Fall jàmbaar ji nga xamante ni léppi Cheikh Omar Fall moom la jàmbaar joo xamante ni taxawu Cheikh Omar Fall ci fànn bépp waaye nag ñu toog ci ak xalifaam Serigne moor Mbacke Fall ak Serigne seex Fall waaye nag ñu fekk ci daayira bu mag bii nga xamante ni mooy wëlëree Cheikh Omar Fall yi nga xam ne ñu ngi ànd ca bu yàgg ca boowee 1917 1918 ba 2020 ñoom ñoo ngi nii toog ñu ànd ak sunu baay Serigne Malick Seck ak njaboot gi yëpp. kon nag ñu ngi leen di dalal fii ci ëttub sëriñ Ababacar Fall ñu jox kàddu gi sunu baay sëriñ Seex Fall kum jox kàddu rek ñu woyal ak liggéey bi sëñ Babacar Fall nekkoon jàmbaar joo xam ne tey fu ñu tudd njabootu Seex Omar Fall fu ñu tudd liggéeyu Seex Omar Fall rek cig jàmbaar teem la taxawu ko taxawu Seex Omar ba Seex Omar jiitu mu taxawu njabootu Seex Omar ba ñu yeewee bañ màgg mu yëkkati liggéey bi jox leen ko buñ tuddee Kër ma soxna nag danañ tudd taarix bu yàgg te gàmm 1926 min lu ko jiitu 1917 ba ñuy gàmm ca boowe ba gàmm go mu lool Cheikh Omar Fall daal di wax taalibe yi jug leen ñu daal di jug ñu dem fekk Serigne Alioune sekk ca fa muy gàmmoo bañ gàmmoo bët set Serigne Alioune Seck ne ko Omar mu ne ko Mbàkke mu ne ko jëf jërëjëf jërëjëf gërëm naa la toog naa ak Serigne Touba mu ne Omar Fall ku baax la ku matan toppatoo la ku matan nemmeeku la jërëjëf làq nga sama ngërëm ne ko mu ñaanal ko sa déwén sa Serigne Alioune làqu njaboot gi yëpp daal di ànd ak moom ci liggéey bi kóllëre googu ak taalibe googu ba tey jii ñoom ñu ngi koy sàmm yàlla na yàlla fayal ñu leen sunu jàmbaar yooyu nga xamante ni tey boo demee kër ma soxna doo fa gis mukk lu sëñ Touba rek nga fa yëg yàlla na yàlla fayal ñu sunu mag ñi waajur yi fi des ñaan sunu borom ñu yàgg fi lool njaboot gi kóllëre gi ñu am ak Touba yal na dëgër yàlla na sax sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ñu ngi nuyu mbokki julli yeeg mbokki taalib yëpp siyaara ñi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi muy waa Touba TV ak waa Mafatul Bichri TV ñu ngi xam ne depuis bu yàgg ba léegi ci wàccaay gàmmu ba léegi ñu ngi ànd ak ñoom liggéey bi ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñu doon yaatal la liggéey bi wax dëgg yàlla taxaw ci taxawaay yu am solo lool di siyaare bu baax a baax suñu moom la ab du doon nettali léegi nga xam ne moo fi taxaw taxawaay suñu Aliou seek moom ñuy wax ak ak kilifa yi mu àndal yëpp ak njaboot gi ak daayira bi yëpp rek daayira xidmatul xadim nga xam ne ñëpp a ñëw xale yi ñëw nañ soxna yi ñëw nag kilifa yi ñëw nañ ñu ngi leen di nuyu bu di leen di siyaara di leen di tatagal bu baax di amati mbégte mu rëy ci ñoom di yàlla seen jéego yi dikk yeeg dellu yëpp yëngu yeeg dal yeeg yëpp rek suñu borom nangu ko te def ko suñu téere jëf boole ko ci liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ bi doon digle ci gàmm te mooy taxasimo bi sunnati yaquduna lil jannati bi hiddiyaadul minnati li moxlisin moazami maanaam màggal ko ci sunna waaye nag day tombeek mu ànd ak sell li moxlisin moazami ñëpp mën nañ ko màggal waaye kii gën a am yaakaar ci màggal gi mooy màggal gu ànd ak sell ak sunna sunna gi nag mooy teg ko ci yoon rek lépp lu ci bokkul rek ñu dindi ko ci te fexe di xeeñtu na sëñ bi daan doxee rek jéem a doxee noonu rawatina nag fii ci Touba Fall ñu góor cee góorgóorlu bu baax ginnaaw loolu ñuy wax ay kàddu yu gàtt rek ci sëñ Babacar Fall mi nga xam ne moom ci ab ëttam lañ nekk ci kilifteefu Baye Mor Fall ni ko El Hadj Abdou Samad waxee rek sëñ Babacar Fall moom kenn la woon ci suñoo Omar daanaka mën nañu wax du ñaar koo xam ne dañoo bokk wenn waajur wu góor ñu dox ba mu yàgg mu ne ko Babacar sa sa kër mi ngi ci sama biir kër wax ji xaw a mel ni lu gàtt wala lu lëndëm diir bu gàtt suñu Omar jógee fi waa këram yëpp suñ Babacar Fall la leen yor daanaka ñuy ñu moom la ñoom la fi nekkal comme wéetal ba keroog ñu fiy jógee yàlla na yàlla liggéey boobu te gërëm ko muy liggéey bu yéeme boo xam ne ni leen suñ borom ràbbale woon seen i mbir wax dëgg yàlla saa su ne day gën a yée ñu bëree bëri rawatina képp ku ñu naan diw sàngam ay doomu bàyyi lan loolu misaal la ci ci gën a jàppante gën a góorgóorlu ba gën a bàyyi wante xel bokk bàyyi te bokk bañ a bokk waajuru jigéen terewut a mën a ànd terewut a nangul sa morom ñin ñi nga xam ne dañ cee toll na ñuy bàyyi xel loola di ko gën a mën a jëriñoo ndax nit kat dañ ne royuwaay mooy koo xam ne lam daan def chaque année bu ñëwee mu gën a bees gën a neex a dégg kon nag loola boo ko amee yow ci say tànk da koy téye bu baax bu ëllëgee keneen mën caa ñëw jëriñu si ñu ngi gërëm bu baax ci loola ci liggéey suñu Omar ak sëñ Babacar liggéey bi nga xam ne nag doon na ko taxawee fii ci Touba Fall moom ah, ku ci nekk maanaam dafa jëmbatu garab ba garab ga ñor dara desul lu witti jëf muy maanaam dako ko xàllal yoon ba mu baax rek mun na ko yoon waa ngi ni demal waaye mu kenn mës a dégg ne nañ wala ñi ngi dox di wër di taxawaalu ñi daan jàng fexe na ba seenam njàng wëy bi ñibbisee tamit ku ci nekk mu teg la ci yoon moom war a teg ci Baye Alaaji Baye Moustapha Fall mi nga xam ne moo doon ab taaw suñu Omar ba mu ñëwee moom lañ jox daara ja daara ñi nga xam ne suñu woon moom la doon woon ci sëñ ma euh, waajuram sëñ Moussa Fall la ko jox Baye Ibra Fall ñu euh, cërale ko lu taalibe gi ci kër gi si Serigne Fall ñu jox ko imaama gi ak ñi ci topp ñi ci topp loola muy liggéey boo xam ne mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax ku ci nekk am na cër lu la yàlla cëralee nga bàyyi sa xel te bàyyi ko mu mokk xam naa ñu bañ a guddal rek di gërëm bu baax a baax nag Baye Amat Fall mi nga xam ne maanaam mag la ci kër gi di di di di di kenn ci suñu waajur yi muy Baye Mor lu mën a xew lu mën a xew mu ngi ci kër gi neex ak muy tiis ako bànneex yëpp rek mi ngi fi taaxirluwut kenn xeebut kenn ci kër gi ñun ñi gën a ndaw ci kër gi sax wax dëgg yàlla mën nañu wax man ñun la gën a fonk ndax wolof danaan ku la tuddee doom bëggul nga dee te tuddee na suñu waajuru góor doom tudde wante nañ ay doom kon loolu kóllëre gi donte doomu bàyyi lañ sax waaye kóllëre gi dafa gën a dëgër sax ginnaaw loolu ñu gërëm bu baax a baa suñu bàjjen aminte mi nga xam ne yàgg nañ koo wax kër gi moom lépp lu fi waay bëgg boo bëggee mu gaaw a sotti jaaral ci moom ndax mooy kilifa ak Baye Mor mii toog bu loolu weesoo nag Baye Cheikh moom buñ gërëmee Baye Mor gërëm nañ ko moom tubaarkàlla suñ mag ji nga xam ne mooy suñ jëwriñ te jox ñu ndigal li moom mooy suñ lépp lu ñu ne liile rek ña nga ca muy seen Fall mii nga xam ne mooy eh, xalifa Baye Keba Fall doon doom ci sëñ Omar Fall a dëgg yàlla muy koo xam ne taxawaayam ci kër gi kenn laam-laam yow kenn lam-laamee daanaka ku ñëwee ci kër gi doo gis ba gàmmu gi jeex nekkut fenn wallahi ca waañ wa rek nga koy gis sànq nii bi ngeen wax dama ne leen nañ nañ doxal sax ndax amul jot kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg suñ kanam lool te ànd ak wér te xéwal yokk lool te barke مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة